comme envoyé spécial 4P nag jàpp na ne daal li waral Macron amal li nu mel nag bokk na ci di dugal loxoom ak bàyyi xel ni ñuy doxalee fii ci réew Sénégal ci ab ndaje mu mu doon séq ak way taskatu xibaar yi yéeni kaay bi ne présidente Mimi 2024 daal dinay dellu soit ci actualité politique bi nga xam ne rek nemmeeku nañ ko fii ci réew Sénégal rafetlu na nag téeméeri fan yi nga xam ne rek régime bu jomaay mu ngi koy doxal ak wàññite a Mansour Faye waaye ma ngay ñaawlu itam nag ni waa France di dugalee seen loxo ci politique bi Sénégal di amal jaarale ko ci mission boobee ñu jox Macky Sall Sud Quotidien fellu ko ne ñaari fonction yi nga xam ne rek Macky Sall am na ko mu di njiital APR ak envoyé spécial 4P nag lu jëm ci wàllu tasuk assemblée nationale 1000 milliards yi nga xam ne rek moo soxal Covid 19 bi Mimi Touré ma ngay tàngal moom mi fi nekkoon premier ministre bu Sénégal weer yi ñu ngi koy amal jëmale ko ci kaw Bassirou Diomaye Faye boobaak léegi ak premier ministre am Ousmane Sonko ci ab ndaje mum doon séq ak way taskatu xibaar yi niki démb ci àllarba ji nag Aminata ma ngay dal ca kaw ci li mu tabb ki nekkoon njiital réew Sénégal def ko muy envoyé spécial bu 4P ma ngi koy xamal ci biir yëglekaay bi ne ko Macky liggéeyal ba noppi nag di wéy di jiita parti politique fii ci réew Sénégal Vox Populi ne ko téeméeri fan yi nga xam ne rek Bassirou Diomaye Faye def na ko ci bopp réew Sénégal Aminata Touré ma nga dal ci kaw ay ancien naataangoom yi mu bokkaloon parti di APR ma leen di tuumaal nag ne dañoo bëgg lëndëmal xelu askan wi rek ci yaakaar gi nga xam ne rek am nañu ko ci gouvernement bi nga xam ne rek moom la président Bassirou Diomaye Faye jiite waaye Macky Sall ci boppam lépp luy njaag rek moom mooy njaag ndax lépp lu ko jegi di amal jamono ji rek moom moo nekk ca gannaaw Mimi Touré ne fi mu toll nii moom Macky Sall nag li mu bëgg rek mooy dellu soit fii ci réew Sénégal ngir samp nëndëm te bu loolee amee nag xam leen ne mooy doon kiy diriger list bu APR ci élection législative yi bu fekkente ni nag dañoo bëgg amal ko combat politique boo xam ne rek dañu koy jaarale ci ay wax yu ñaaw ak ay defin yu ñaaw nag ñun dinañ ñu fekk fii nag dinañu taxaw ngir fas yéene defanteeg ñoom ba duñu gëlëmal askan wi source a daal di dellu siwaat ci lu jëm nag ci composition bu conseil supérieur de la magistrature nag ak lu jëm ci wàllu fonds public yi yéeni kaay bi ne mimi ma ngay avertir kii di jomaay les éco yëglekaay ne cong gi nga xam ne rek ñu ngi koy amal jëmale ko ci régime bi yees bi nag kii di Aminata Touré ma ngay dal ci kaw Macky Sall di écraser waa APR Macky Sall ci boppam nag lii lépp moo koy manœuvrer à distance France ma nga ca France waaye lépp loo xam ne rek ku jëgaan koy amal jamono ji nag moom mooy ki leen koy digal libération moom itam xëyee ba tey ci tontu li nga xam ne rek Mimi Touré tontu na ko ñii di waa APR moom nag ma ngay xam ne ni daal lépp lu ñu def suba ba ngoon rek Macky Sall mooy ki leen ko sant ndax ba jamono ji ñuy àddoo nag nanguwu la wanaa su benn yoon nag duma yi nga xam ne moom la ko jumaay fay duma ci élection présidentielle yi ñu weesu loolaa waral nag mu toog fa toog ngir di manigance rek bu ko defee Sénégal nekk ci ay xiiroo ki ngaayoo ak jafe-jafe le quotidien yëglekaay xëyee moom itam taxawaay bi nga xam ne rek ci la opposition bi taxawee jamono ji nag tey mairie fan na ginnaaw bi président Diomaye Faye jiite bopp réew Sénégal yéenekaay bi ne opposition bi jamono ji nag taal bi ñu ngi koy uppee ci wet gu nekk muy Thierno Bocoum wala Bougane Gueye Dany ñoom ñoo accaparé terrain bi candidat yi nga xam ne rek ñoom la ñu nemmeeku ci élection présidentielle yi ba naga ni kenn déggu leen dafa mel ni ba léegi nag dañoo nekk dans le commun Walf Quotidien ne ko moom ñu nemmeeku ci ténor yooyu nga xam ne rek ñoo nekk ci kujje gi te bokkoon ci élection yi ndax ba ni si nag dégg dégguñu kenn koo xam ne rek mi ngi àddu jëmale ci nguur geeg ni muy doxalee seen ci laaral googee nag yéenekaay bi mi ngi ciy jéem a indi ay leeral yër leen ko ci ni mu gën a yaatoo laas yëglekaay daal di àddu jëmale nag ci ab proposition de loi bi nga xam ne rek moo jëm ci tas lii nga xam ne rek moo di assemblée nationale yéenekaay bi ne Macky Sall ma ngay ne waa Benno Bokk Yaakaar les éco yëglekaay dellu suwaat ci ab ndaje moo xam ne rek waroon naa dox ci diggante njiital groupe yi nga xam ne rek ñoo nekkee ci assemblée nationale ngir ñu daal di saytuwaat nag lu jëm ci règlement intérieur bu pencu ndaw Adama yéenekaay bi ne Abdou Mbow Ayib Daffé ak Mamadou Lamine Thiam daje nañ ci talaata ji ñu weesu nag li ñu bëgg rek mooy daal fexee méngale li ñu mel nag ak déclaration politique générale bi nga xam ne rek war nañ ko amalee ci assemblée nationale ci fan yi ñu jëm ci wàllu jàng meeg jàngale mi ca la ñuy àddu jëmale Vox Populi daal di xëyee niki tey jii ak xibaar bu neex bi nga xam ne rek am na jëm ci wàllu jàngalekat yi lu jëm ci arrêté relatif yi nga xam ne rek dafa soxal examen professionnel yi lu jëm ci wàllu catégorisation décision nomination yi nag lépp giraas mi ngi ciy ay saafara loolee nag doon loo xam ne rek dafa am solo lool ci carrière jàngalekat yi nag te lu ni mel nag faaw ñu daal di ciy taxaw jël ci ay engagement ngir respecté ko moom jëwriñ ji nag di xam ne ne bépp jàngalekat rek daañu fexe ba mu gis boppam ci li muy yëngatu ci noonee nag ma ngay woo acteurs yi ngir ñu daal di xalaat ni ñu mën a valoriser yooyee fonction nag bu ko defee ñu gën a mën a gunge ñii nga xam ne ñoo di jàngalekat yi Le Soleil yëglekaay faylu ko ne lu jëm ci gestion ak carrière jàngalekat yi nag jàppaleen ne lu toll ci téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom ci ay acte nag daal dinañ koy xaate lu toll ci juróom-ñeenti junni ak juróom-ñetti téeméer ak ñett ci ay bénéficiaire fas yéene koo jëfandikoo l'info yëglekaay ne ko giraasi kay jamono ji nag dikk na rek ngir fas yéene saafara nag jafe yi nga xam ne rek moo waraloon enseignant yi di dëkkee ay grève saa su nekk wax ci wàllu trafic international de drogue fii ci réew Sénégal ab française moom la ñu fi teg loxo ginnaaw bi ñu ko fekkee mu yor 40 kilogramme cocaïne foofee ci aéroport Blaise Diagne bu Diamniadio addu jëmalee ci wàllu tàggat yaram réew mi sport ma ngay xam ne ne foofee ca Marseille Ismaïla Sarr nag dañu koo séance d'entraînement yi nga xam ne rek Roberto De Zerbi doon na ko amal stade yëglekaay la ñuy àddu jëmale ak Ballon d'Or yu 2024 yéenekaay bi xëy na ni fàng foto Vinicius Bellingham ak kii di Rodri jeexalee ko ak wàllu làmb réew mi sport ma ngay xam ne ni nag Balla gay ak Tapha Tine jamono ji nag ña ngay rassuré seen ay supporters ci làmb joojee nga xam ne rek war naa dox ci seen diggante ci jamono ji nag ñu ngi ci wàccaay yu mujj yi mbokk yi li gënoon a fës yëglekaay jàmm ak jàmm Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak 3MD énergie